boy bi kan mooy sa waykat kan mooy way nga kontaan. Ndongo Lo. ndeysaan. Ndongo Lo baax trop. Ndongo Lo mooy sama waykat te dama ko bëgg. trop Ndongo génn àdduna depuis 15 ans fukki ak juróom. ba tey moom ngay déglu. Oh. dama ko bëgg sama xol sama téléphone ay sonam doo nga ci ne. ay wayu Ndongo kese ngay déglu kan mooy sa comédien comédien yi gars yi nekk fii di déggal gars yi di reetaanloo nit ñi kan kan moo ci koo xam ne mooy sa comédien préféré. xanaa wuli. wuli ma wuli. wuli men borom waa li neexul. Ah. wuli bu boobaa. waaw <laughs> mooy sa comédien préféré. waaw waaw wuli. wuli chaque jour moom laay seetaan. ok moom rek ngay seetaan. moom la demee boo koy seetaan da ngay. damay kontaan. moom ñànk ak ñànk. waaw dëggantaan. Eh, ñu passé eh, mais dama naan série sénégalaise yi. waaw. ban série moo ci euh, moo sa série mooy boo xam ne da nga koy seetaan tout le temps. comme football wala. non série sénégalaise yi série yi maanaam. wiiri wiiri fii un café avec. Euh, Pod et Marichou genre yooyu da nga koy seetaan. wax dëgg lu ma fen nag yooyu moom wax dëgg lu ma ko seetaan. Euh, da ngay seetaan football. yeah football koy seetaan bu baax parce que man lu bokk ci sport rek daf ma neex trop. daf ma neex trop. waaw ban équipe mooy sa équipe. kan man. Ah. non man moom Real mooy sama équipe. Real Madrid yàgg nga supporter Real. waaw est-ce que mën nga ma limal juróomi joueur yu mës sol maillot Real Madrid. <laughs> non carrément nag mënu ma la ko. léegi joueur yi ne Real tey ak yow mën nga ma limal jou euh, cinq joueurs Real Madrid. non cinq joueurs mënu ma la ko limal. yi nekk Real mën ma xam ne Real lay supporter. na am na sport yoo xam ne da nga koy bëgg di ko dund te carrément mënoo xam joueurs te. te xam nga jànguñu. ok mooy loolu. dëggantaan mais Real mooy sa équipe. mooy sama équipe te man lépp dama koy seetaan. léegi kan mooy sa joueur. kan sa joueur. Sadio Mané. sunu waaw mooy sama joueur la. àdduna wërngal këpp Sadio Mané noonu la nag mooy sama joueur di ko ñaanal waa ca kaw ca kanam euh, guy gi. waaw nga liggéey ba tekki dal ci am alal ju bari. waaw lan nga ci njëkk a def. teral sama yaay ak sama papa maa laa koy yóbbu waaw tabaxal ko kër bu baax mu ne janaat. ak sama papa loolu daal laa bëgg. loolu mooy loo xam ne tey boo tekki woon am alal yu bari loolu ngay jëkk a def. teral sama yaay kese ak sama papa loolu daal laa bëgg. Euh, nga xëy un jour ñu la am nga benn baat ci réew mi loolu tere ñu jëlee ko fi lan nga fiy jëlee. non ndaw ñi ñu jéem a liggéey nga xamante ni liggéey rek moo am solo fexe ndaw ñëpp am liggéey. ndaw ñëpp am xëy. waaw maanaam bu amoon benn baat. ñu ne la tere ñu jëlee ko fi li nga fi jëlee mooy ñàkk xëy bi waaw waaw ndaw ñi am liggéey waaw affaire yu bari daal wàññeeku ko waaw mooy loolu noonu la demee nag euh, aussi damay dellu siwaat ci sa vie privée dama naan euh, Moussa Gouye ban jour moo la gën ci sa dund ak jour boobu lan moo xewoon jour boobu mën la ko wax may ma ci tuuti jour bi la gën a métti ci sa àdduna non boobu carrément mën la ko wax mais am na am na waaw mais mais mënoo ko séddoog nit ñi. am na trop waaw. am na dafa ma marqué dafa ma marqué quoi. parce que kooku su ma la waxee fii rek damay jooy léegi. ok da ngay bañ a da ngay bañ bañ bañ bañ wax ci. waaw mooy loolu sa rongoñ tuuru. d' accord ba tey mën naa la nangul loolu. mais aussi bés bi la gën a neex ci sa dund. bés bi la gën a neex ci àdduna ban jour la. <laughs> bés boobu lan moo xewoon lan lañ la defoon wala lan lañ defal. non man suur yëpp ma neex nag. d'accord mais jour bi la gën a neex sa dund laa la wax. non man mardi daf may neex trop. non jour boo xam ne da nga am lu la neex. waaw jour boo xam ne da nga ci àdduna am ci jour ne. da am lu la neex ci àdduna loo xam ne mënoo koo fàtte. non suur boobu kay xam nga ne ah lu du màggal Touba kay gisuma lu ma neex de. Ah, màggal Touba moom da ngay. màggal Touba kay bu passé màggal Touba gisuma leneen lu ma neex ci àdduna. noonu la demee ndax ñun amuñu lu dul. Serigne Touba Cheikh Ibrahima. parce que ñun ay baafaal la ñu ay taal bi lañu. noonu la demee nag. sëñ bi daal sëñ Touba sëñ Cheikh Ibrahima. noonu la demee ah, ba tey ba tey ah. ba tey euh, non loolu mooy loolu euh, macha allah. Ah. macha allah yoo xam ne man di fois daf may neex quoi parce la laajee nga dara loolu sëñ Touba Cheikh Ibrahima. ñoruñu quoi. ah voilà c'est intéressant mais aussi euh, dama naan rek que amul lu ma la waroon laaj loo xam ne laajuma la ko. tey parce que tey tey fii laa ñëw ma tey instant bi combat taxawul fekk ma la salle musculation fekk ma la contact dama ñëw fekk la yaag sa gars yi mafia bi ñëpp ñuy toog dama dégg dafa am série de questions yoo xam ne moom laa ma la waroon laajte lépp de noonu la demee nag waaw waaye woo dara de dëggantaan kontaan ci yow waaw mais benn instant xam naa ne di nga ñëw ci euh, tëj après mm, sant gërëm parce que mënoo xam nga rek gars yi ak ñooñu noonu ñu ci jaaru mën mm-hmm. mën Euh, mënoo leen ñàkk gërëm mais ben instant bu ñuy récapituler waat sa carrière ci arène bi trois combats nga bëri. trois combats la bëri deux victoires ben défaite. deux victoires benn défaite instant bi yaa ngi ak avance wu Assane Ndiaye Baol production war a bëri ak Caatu Montagne ce premier combat dans l'arène moom nga bëri ak euh, Boy Balla bu Pékin nga daan ko deuxième combat dans l'arène nga bëri ak Pape Ndaw nga daan troisième combat ñu jox la zéro arrière bu école bi Balla Gaye mu daan sa quatrième combat taxaw ñu dem ba desul lu dul cinq jours gars yi arrêté làmb ji nga waroon a bëri ak caatu montagne instant bi yaa ngi waajal déwén mais Moussa Gouye Gui dama naan lan ngay tàggatoo non euh, ginnaaw ba ma sant yàlla juli ci yéen dem sant sama yi fi toog yëpp ñi fi toog ñan la ñan ñoo fi toog sama grand bi moo bi kenn na ci man dal man la barki alxuraan damay toog fii du ma yor ñaar dërëm mu génne xaalisam di ma ko may te defalu ma ko dara barki alxuraan mooy loolu kooku kenn la ci man dama koy ñaanal wér rek gaa yëpp ñoom alsaan mhm. séeréer mhm. awma seen fay gaa yëpp dañ ciy jàpp góoru séeréer séeréer moom war a a fee kenn la ci wan nag kii moom après nga jox ko micro bi loolu waaw suñu ah. gannaaw ah, daaw la kenn la ci man dees moo solkat bi na le billaahi moom it noonu la demee boo toogee yoroo dara sax day ñëw bokkal la dara barki alxuraan merci mooy loolu gaa yëpp samay grand lañu mooy loolu sama baay faal baa nga na le kee moom après nga jëlal ma ko kenn la de billaahi baay faal ngi ne te xaadim noonu la demee nag yee kenn la ci man barki alxuraan chaque jour li may wax nag bu dul dëgg ah yàlla bu yàlla lii may wax yàlla bu mu egg chaque jour danaan maa mbër de lépp entraînement ba naa ma ñëw mu lam sama tànk dama entraîné wu de bu ma demee entraîné bu mu ñëw mënu ma entraîné wu noonu la demee nag billaahi mooy tax ma gën a yokk jom parce que kenn la ci man xam na li tax mu may wax loolu mm. billaahi waa ji gis nga kii Pape Sène la. mooy loolu dama koy bégee. parce que moom kenn la daal. damay booleeg ay naaram. Mhm. billaahi ñu may may xaalis bu bëri bu ma amee ko baax. kii dama koy sant di ko gërëm. barki ah, alxuraan kii nag kenn la ci man. booy bii. yee noonu la sama booy la. moo Africa champion la nag. waaw maa ngi koy bégee lu bëri. waaw di ko ñaanal jàmm. kii mbër la kay. kii mbër la. dama koy ñaanal rek mu egg fa champion egg. mooy loolu moo kii moog Ronan. Uh-huh. Laurent. Uh-huh. combat la. ok di moog Laurent combat la. moog Laurent. waaw. ok la demee champion la. yee noonu la demee nag maa ngi bëgg yi toog fii yëpp. Uh-huh. waaw mooy loolu Dour Séeréer. kee kenn la ci man maa ngi koy bëggee. billaahi maa ngi koy may émission bi. barki alxuraan moom heure bu ñëwee rek damay ree quoi damay kontaan. parce que mooy loolu. billaahi di bëggee gars yi ne fii yëpp. waa pompier bi. góor a ngañ maa ngi koy ñaanal waaw di ko jaale waajuru góor waaw dafa génn àdduna di ko ñaanal fu mu tëgg gënal ko fu mu jugee góor kenn la ci man yàlla xam na ne billaay wallahi maa ngi koy ñaanal waajurum jigéen fu mu tëgg gënal ko fi mu jugee waa di bëggee gaay yëpp waa pompier bi nag ami Njaay fii lay jaayee ndéki barki alxuraan kooku bu ma la waxee li may defal sax nga ne wutum dëgg barki alxuraan damay ndékk ba suur laa la wax barki alxuraan après mu joxaan ma xaalis na ma demal demal añ ci fii ña fa nekk ñëpp ñoom jiw awa Adama ñi fa nekk ñëpp maa leen di ñoom Ndiolé ñëpp maa leen sant parce que ñooñu kenn lañ ci man daal. billaay wallaahi kii nag aw ma fayam Alboury moom lay jàpp ci combat yi quoi champion la maa koy bëggee lu bëri waaw di bëggee gars yi ne yëpp mooy loolu sama grand moo teew aw ma fayam maa ngi koy bëggee ba takki maan Alioune Daanaan maa ngi bëggee njam sama booy mafia bi Al yëpp may yëpp may ñoom maa ngi koy bëggee mag góor a bada gars yëpp waa waa sama waa dëkk Réfane Ngogom ñëpp maa leen maa leen di bëggee Ngogom ñëpp maire yeeg aw ma seen fay dañ may ñaanal bu ma amee combat amut combat yëpp dañ may ñaanal. noonu la demee. kon rafet na waaw sama gars yi comme ni ngeen ko gisee ah, euh, ñoo ngi toog ak Moussa Gueye gi moom lañ ñëwoon seet si tey. Euh, l'espoir di bawal. li leen wax gis que ne waa ji waratul sumeeku taxaw ci géew ñu ne kii kan la bu sumeekoo taxaw nañ ne Moussa Gouye Gui mi ngi nele lan la indi mi ngi waajal nag un combat capital ak caatu montagne waaw di leen wax gis que ne ñoo ngi leen di jox dig daje yoon ziar ziaral sama gars yi jaa ngeen jëf waaw bëgg waa sama waa ikri di leen bëgg bu baax a baax a baax maa ngi bëgg waa sama waa ikri dama koy tàmbalee ci mbay mi kenn ci man maa ngi koy bëgg di ko ñaanal jaamu li laa suñu kër ci limaan yee suñu papa Badajon ñu ngi koy siyaare suñu papa Daouda Sarr gars yëpp waaw ñu ngi leen siyaare BMW Ahmed Lagros Mafi Tafa Leer champion yoo xam ne yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm waaw sama waa dëkk mairie ak ñëpp sama yaay maa ngi koy ñaanal wér gudd fan ba li ma fas yéene def yàlla suturaal ma may ma ko ma ba ma defal ko ko barki alxuraan ak sama papa maa ngi ñaanal ñëpp jàmm daal Diouf maa ngi koy may émission bi Diouf kenn la ci man sama yaay ju baax barki alxuraan sama booy yi yaay teew ndogoy ñoom ñëpp maa leen Njole koy may jaara ñëpp maa leen may émission bi. ñëpp billaahi jee eh, rafet na c'était avec Moussa Gueye di leen jox dig daje ba beneen yoon. ziar ziaral sama gars yi jëf.